ñi ngi am PDS. Mhm. parce que ñoo waral coow li. dëgg la et que tey li am ni tey ñoom ñu génn ñëw toog jox ñu occasion. Mhm. donc li may njëkk a wax rek. Euh, Mayoro man fi ma d'accordul ak parti démocratique sénégalais parti bu toll ni parti démocratique sénégalais def 50 ans li nga ko expliqué sànq ci raisonnement bi 12 ans affaire yi la question sur la nationalité de Karim Watt. Mhm. foofu dama jàpp ni ni. Euh, ils ont prêté le franc. ils ont prêté le franc. wala il y a aussi tamit absence de démocratie wala am na lu xew ci parti bi wala jëlu leen seeni responsabilité parce que y a débat boo xam ne ni mu ngi démarré ci maître Moussa Diop mhm. avant avant Thierno Alassane Sall parce que di ko yëkkati xam nga Thierno Alassane Sall ma quoi qu'on puisse damay jàpp ni ni dañ ko tuumaal ci li ñu wax ni Amadou moon parce que kooku gëwma nit dina nekk ci ginnaawam parce que toute sa vie parce que tout sa vie dafa xeex ak parti démocratique sénégal commençant ca ah. ASECNA ba mook Farba Senghor commençant ba fu PDS bokk mu ne moom du fa dem xam nga il est constant dafa le PDS waaw mais moom laa lay wax ne la kooku tey bu ñu yeewoo ah, parce que très tôt bi ñu waxee l'amnistie moo njëkk a taxaw ne amnistie koo xam ni dafa dañ ko jiiñ xaalis mu dem mën nañ indi xaalis pour ñu am doole ci élection yi Thierno Alassane Sall bi mu koy def il tu seul tudduñu ci Amadou bi muy bind livre am bii ci li tas asek li tas euh, société euh, yi nekkoon SHS ak yi nekkoon biir ay rapport ak yëpp dafa indexé carrément ce qui s'est passé sur l'affaire de l'ARTP bi mu ñëwee problème yi mu njëkk a tas kaseek yooyu yëpp dafa expliqué wane nii régime bi donc kooku pour man xanaa peut-être que Amadou daf ko ci buñ ko ko jiiñee dafa tombe mais Thierno Alassane moom dafa am problème ak PDS d'accordul ak gestion PDS moo tax sant ko ko léegi nag non xam nga santine bi <laughs> du ma d' accord xam nga lu tax mais mais bu dee santine ñu ne ko colis mais xam nga lu tax ma ne du ma d' accord tax ma ne kon Karim Wade pour mu diriger Sénégal nañ ko xoolaat wala parti démocratique Sénégal parti bu diriger douze ans nañ ko xoolaat mais un débat am <coughs> sur la nationalité parti bu normal di fonctionner am comité directeur am lépp ñu bind ci journal fii Public SN da nga ci génne génnee ci titre Mais cette question, moi j'ai interpellé dans tous les débats, madame m'a hmm, Karim Ouad, il nous doit deux choses. Moi, il est au Sénégal. Parce que la question bi tax dañu pari won fi sax question yi la waxone man la la la clarifier parce que au-delà du parti da y am ay sympathisants mm-hmm. dafa am luñ japp ni da ngeen ci victime des ay injustices parce que man d'accord na ngeen xex seul parce que a une demande sociale tay société civile bi di forum civil yii di wax. ñoo demoon uti ji ay preuve ay charge ne jàpp Karim Wade c'est une demande sociale. milliards ñu ne dañoo indi preuve ba zéro preuve. maître Félix Sow yëkkati fii ne. kooku mi ngi Sénégal cent mille moo tax forum civil. bu ma ko déggee tey santoon Thiam avocat ba santoon Thiam. maître Félix Sow moo fa nekkoon. voilà Yirim Thiam moo newoon bu état mais maître Félix Sow bu forum civil. Mhm. moo def benn discours. ne amna ay xaalisu 600 milliards ay compte yu ñu def. motax mhm. forum civil man ay dewuma dialogue forum civil ba mu nekk nekkatul euh, société civile yàgg na. mujjul fenn Birahim nekkatul société civile yàgg na. Ah, opposant la. Mhm. ba forum civil décrédibiliser bop décrédibiliser boppam ci affaire Karim Wade Bob. ba Sénégal jël Khalis, def commission rogatoire on a perdu combien d'argent argent aduna fep alors que forum civil. mom mo ñu wax ni Karim Wade dafa denc ay milliards. Mhm. après mu naan dañ sàcc ordinateur am ci créé boobu ñu ah? après mu ne dañ sàcc ordinateur mais looloo tax ma ne la Karim ku dund loolu ñu ne ñu ne créé am na vingt cinq personnes ñu ne créé baaxul ñun tey COS M23 boobu bi ñu taxawee ne non ni ñu attee Karim ni dañu violé ay droit am Sénégal yëpp dañoo jiñ Karim Wade mhm. nañu moment boobu ku wax ci Karim rek ñu ne la daf la jàppale mais bi ñu yegsee ba Karim traversé yooyu yëpp créé bi jóge fi lépp jóge fi ba mu des benn problème muy sa nationalité ñu posé ko si ñaari plateau ben bi maître Moussa Diop yëkëti débat bi benen bi sénégalais tamit interpellé ko ci mu xam ni li day ñëw le minimum de respect moy mom ci walu bopam waron na communiquer ak sénégalais bala sax ñuy dem conseil constitutionnel pour rassurer le peuple. ça ah, quand même parce la foofu fofu nak la xamé ni ni bu fekké né parti buy fonctionner normalement mm. ay kilifa nekk fa ay borom xam-xam nekk fa ay juriste nekk fa ñu xam ni li ci politique mën na leen gaañ gal la parce que do même bu dé tierno am nako mais 500000 fois man dama waxoon ni dañuy wax rek ma ne leen mais dañuy sóob rek ak ñi ñu yónni ci plateau yi ñuy neexal waa Pastef yi rek naan ay midi non fii kenn mënu fi gagné te doo ànd ak parti démocratique Sénégal mm-hmm. bu ñu daan wax dama ne leen benn parti mooy deuxième force ci fichier bi mbedd bi nag mën nga fa am doole mais ci fichier bi parti PDS mooy deuxième force. Mm-hmm. mu déggaat nit ñi di mm-hmm. neexal nit ñi ba nii sax naan midi bu ñu demee 11h gagné loolu ay loolu ay neexal nit la wala ay xumbal kii wala ragal ay nit wala ñu fay leen ngay wax mais parti boo xam ne ni. y a wallu ji pour le moment, une majorité équilibrée Ce n'était pas du D'ailleurs, on toog def calcul. le mhm. plan de c'était des calculs sur la base. Ah, des résultats. ce n'est pas un plan de c'était non quelque ah. non non non non les gens passent tout leur xam nga man Déthié

non defal ndànk. am na état boo xam ne bañ ca àggee ku ne da doon def ay proposition bu ñu dajee yi ak wàllu di waxtaan ku ne da nga joxe sa proposition mais ku ne ak ni ngay communiquer man aw ma benn intérêt di ci naan moom moo joxe kii bi ma naan de mais de ci ban instant la dugg ci jeu bi. ban instant la dugg ci jeu bi non loolu indiwul waxtaan bi xam nga tey indiwul waxtaan mais mais dama bëgg rek ngeen xale ma yor non non dama non baay bi ñoo xam dama bëgg a ni ah, kon Karim ñun la jóge ak euh, Boubacar Camara ak Mamadou Lamine Diallo mm. détails beneen plateau bu ma fi ñëwee dinaa leen ko jox xam nga foofu pour revenir pour wax la ni. kii du teel a <laughs> lay xeex. non non foofu a ñëwaat plateau de. non non foofu laay waxee. Doudou sa grand la. waaw waaw xam naa moom grand yow sama grand nga de. mais doo teel a ñëwaat plateau. te du ay non mais. <laughs> yow pour pour pour léegi loo wax laa wax. <laughs> Doudou ce léegi je maligne. sur l' importance de ce grand parti. Mm. mooy boo xam ne législatif yi daf la jaral nga tëju réfléchir te ki daw ñëw seet si la ne leen il fallait que ñu boole suñuy voix parce que loolu laa wax sénégalais yi ma ne leen euh, analyser leen résultat yi parce que parti démocratique sénégalais fu mu jaar yëpp ba Pikine boo demee Thiès foo dem feneen ak yëpp boo boolee voix yi ñu cumuler ko la ñu amoon législatif yi loolu moo indi ñu am majorité boobu te bi ñu paree la responsable du parti démocratique dañ ne bëreet rek ñu def communiqué jox leen ñu ñaari député Dakar nangam nangam yi bokkuñu ci ne alliance stratégique la ñu waxoon non on avait signé un protocole. bo xamné dañ né buñu paré ku né da ngay def sa groupe. xam bari ñun batay communiquer wuñ ci. c'est ça qui était décidé on a signé un accord hein demuñu rek waxtaan rek ku né jog dem dañu signé kayit. Hmm. waxuñu won né dañu def ben groupe parlementaire. alliance stratégique la du ah, alliance politique. aussi du alliance politique. stratégique la won bi ñëwee assemblée bi nga defaree sa groupe. après nak yow nga continuer liggéey ak say orientation personnelle ak yow ak say alliés. Hmm.

Pourquoi la politique politique la manger j'ai l'habitude man d'accord uma un moment depuis comme ni nga ko 2022 inédit yi xew mm-hmm. ce qui s'est passé amatuñu parti politique amatuñu euh, réflexion politique plateau yi changé plateau yi ont remplacé permanence yi mm-hmm. Mm-hmm. donc ah, benn ku ne am nga ben journaliste bu la teewal ba finalement le parti tout apparaître hmm. mais léegi mais lañ doon waaye mais li moi li ma leen reprocher yéen <laughs> parti démocratique sénégalais constance ak logique bi mu école depuis mu ñëw ci opposition fu Mimi Touré nekk ñun duñ fa toog. Mhm. fu diw nekk ñun duñ fa toog mais pour man question boobu bëgg naa tamit ndax waxtaanoon ngeen ko pour wane ni ni parti bu bu am ay responsable lañ mhm. mooy la question sur la nationalité bi muy def débat ci. Mhm. ci terrain avant Thierno Alassane Sall di ci wax. avant avant Amadou Ba ñu naan moom la ñu kiiwee Karim Wade ba mu dem ba nekk ay titre journal. ba maître Moussa Diop génn ci ngeen génn attaqué ci. mais foofu est-ce que discuter ngeen ci. parce que buntu bi ngeen ibbi noonu ba permettre à que seen adversaire parce que bi mu laajee ñu war a daaneel Abdou Amadou Ba waa Yewwi bëgg ko daaneel après motion de censure mais boobu yéen da ngeen ne wowuñu leen ci. Mm-hmm. te pourtant c'est ce même Amadou xam nga pour wax la lépp ci contexte politique la. pour eh, mais ñun ñuy groupe parlementaire. Mm. ñoom dañuy def seen initiative initiative group parlementaire ñun associé wuñ ci ñu dem plénière ñu ne ñu da ngeen koy wote. xam moo lay wan ni comme li ma. initiative da ngeen ñu ciy associé. sunu initiative bi ñu jël euh, Benno Bokk Yaakaar dañ leen ci associé de. Mm-hmm. oh non dafa tombé ba mu leer seen bopp. non dafa tombé ah bien boobu. xam nga luy wax dañu fëgg mu dañu fëgg mu nooy. non mais loolu politique la. xam nga man du ma mën a d' mooy borom parti boobu xam nga may parti. posé ñun. balañ koy posé sax dañ koy dañ koy wax. ay satu. oui international bi nga naan ñun mais mais mais mais mais mais mais mais